man je me dis que nii rek lañ mën a def pour euh, euh, développer dëkk bi parce que lépp loo xamee ni euh, ñëw na si dëkk bi ñu invité tamit les différents acteurs mooy ñoo xamee ni ay acteurs la ñoo foo foo xamee ni secteur yu nekk ñoo ngi fa ñu invité leen au moins pour ñoom tamit ñu jox seen xalaat dina si baax tamit investisseurs yi tamit ñoom tamit apparemment ñoo ñuy déglu donc ñun tamit ñaax ñu pour au moins tamit ñu defar benn ay projet yoo xam ne yu crédible yu yu yu yu yu viable comme ça nga xam ne investisseurs yi ñoom tamit ñu mun si dugal si seen loxo parce que tamit euh, fu ñu laal da ngeen xam ne que secteur bi yëpp yëpp am problème donc comme que ñoom tamit euh, seen seen dëkk dañ leen ràññee foofu parmi les meilleurs donc ñoom tamit suñu ñëwee fii nag même rien que rek échange bu ñuy am ak ñoom waxtaan bu ñu am ak ñoom tamit dañuy jëriñu au moins pour la ville pour le développement de la ville sainte de Touba.